sunu problème nag du dara lu dul sunu rue Mame Diarra bi ak sunu tëli karo bële parce que ñun defe naa ne rek musuñu jóg ci mbënd. ñun depuis mbënd di mbënd ba tey 2009 ba tey constat la bu ñu def donte nag am na ay jéego yoo xam ne ñi ngi ci mais toujours dañuy commencer mais duñu yeggale te ñun jigéen ñi dañ ci sonn trop ñun ak sunuy doom parce que sunuy doom ñoo fiy fox sunuy doom ñoo fiy gaañu suñuy doom ñoo fi jëlee ay jàngoro ñu leen di yóbbaay hôpital lii yéen ko gisal seen bopp lii ngeen gis xam ngeen ne moos jaaduwul ñàkk jaadu bi nag mooy amuñu benn canalisation bu jóge fii ci tëli maam jaara bi jëm jàmm gën caaxooy te fii route la woon boo xam ne ñëpp dañ ko doon utiliser ndax heure bu talit bu mag ba amoon embouteillage fii la oto yi doon teggee di fi jaar di dem doxi seen yeneen soxla dugub biir jàmm gën jaar caaroy te loolu mu nekk loo xam ne lu métti la dañ koy dundu jaare vomissement mënul ci gox bi ñu dëkk parce que lii ñu dund salte la te tant que ñi ngi dund ci salte du ñu jóge ci yenn jàngoro yi donc bëgg nañ ku ñu ci jàppale bëgg nañ bu baax a baax état gëstuñu ndax dañuy tàmbali rek te du ñu yeggale. tous nous avons noté que y les travaux de piste 2 qui ont été mais malheureusement nous avons noté un certain arrêt pendant ce temps la les, le cas des agressions, mais aussi les risques de malades s'accumulent. Et c'est devenu invivable. Vraiment, nous dénonçons ça. Nous demandons à l'APIX de diligenter les travaux, mais aussi d'exécuter les travaux la, la manière la plus vite. Autre chose, il y a une vieille doléance, qui la route Rimamdiara, qui est une vieille doléance. Nous sommes tous sans savoir que Rimamdiara est devenu un site donc on ne parvient plus à distinguer si nous sommes en période de pluie ou pas. Tout ça, c'est dû au fait de, de, de négligence, mais de la négligence de la Mamdiara. Donc nous interpellons directement l'État à ce qu'il qu fasse sont euh, maximum possible, ou bien à tenir ses promesses pour que la rue Mamdiara soit réhabilitée. Euh, on ne peut pas vraiment connaître sur ces situations. Nous demandons à l'APEX directement, vraiment, exécuter les travaux.